la altine yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci digg tabaski atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom ci gàddaay gi li yëglekaay xëyee niki tey ji nañu ànd yërandoo ko door ko génnekaay boo xam ne na ci yoonu Sénégal rek nan doon doxee ñu saafara ko naka lañ mën a def ba mën koo waxtaane mboolem rëq-rëq boo xam ne am na ci yoonu Sénégal ñu mën koo jubbanti yénnekaay bi dañu xamal moom Walf Quotidien nañu loolee nag moom euh, jiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye lam ci jublu lenn kottu rek dong la mu di joyanti rëq-rëq yi nga xam jamono ji mi ngi Sénégal ba tey euh, baneenu yëglekaay ak la moo xam ne ni ki tey ji mu moom ca la mu di kat moom boppam ci lu jëm ci la muy dundee ñu koy wax souveraineté alimentaire jamono ji bokk na ci bokk lool njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye nako itam ilimaane jëriñu Ousmane Sonko fexe ba askanu Sénégal mboolem loo xam ne dañu koy dundee muy bàyyeekoo fii ci réewum Sénégal kàddu yéen kàddu xamal nag mooy kàddu Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee na nag insha allahu rabi dinañ ci am ndam maanaam fexe ba askanu Sénégal Sénégal ñu ko nag yéen kaay bi la doxee yéen kaay nag lam xamal moo di mbir mi nag am na ay risque maanaam ni ñuy demalee seen bopp ci yu bare bare bare moo xam ne yu bare bare mën nañ caa fekk yéen dikk na ci di gën a indi ay leeral ba tey bari na yëglekaay ak lam moo xam ne ni ki ji mu di le soleil yéen kaay mu taxawaat tey ji mu di tukkib nemmeeku bi nga xam ni njiitum réewum Sénégal euh, wax Sénégal Bassirou na ci li ko gën a waral moo di gën a dëgëral diggante Guinée Conakry ak réewum Sénégal yu bare bari yoo xam ni euh, tënk nañ ko mi ngi ci biir yéene ji le soleil le point actu moom point actu fa mu taxaw tey mu di Jakarta ñu koy dawal fii ci réewum Sénégal Jakarta yeeg ni mu bare mu di moto yi nga xam ni njàmbat li bare na ci ba àgg ci loolu yéene kaay ci la def taxaw seetlu yéenekaay nga xam si ñooy faj la xam le moo ay jakarta maan lañ jakarta maan maanaam ñu bare bari ci ay accident dañ koy amal ci kaw tali bi mooy ñi nga xam si ni mooy jakarta yi naka tam bokk na ci la ñu xam le moo di bokk na ci li ko waral moo di dañoo umpale lu bare bari anam bi ñu waree dawee ci yoon wi ndax lu bare bari yoo xam ne ay sart ci yoon wi euh, xamuñu ko ñu koy wax code la route naka tam yu bare bari ci yoo ci seenu dawin moo xam ñi yor jakarta yéenekaay bi dikk na ci ko gën a indi ay leeral ak ñi nga xam si euh, boroomi xam lañ gën cee def ay taxaw seetlu ba tey ba nopp yëglekaay ak bi nekk laaj la mu samp bi nag bare bare mi ci biir yéenekaay bi yoo xam ne taxaw na ci yoonu Sénégal fi mu jaar nguur yi nga xam ne ñoo nekkoon ku ci mel ni nguurug euh, Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall ba tey ji nguurug Bassirou Diomaye Diakhar Faye yoonu Sénégal ak nan daan taxawee ndax moo tax yéenekaay bi samp ab laaj laaj moo ndax yoon ca dëgg-dëgg war nekk ngànnaay goo xam ne dañu koy jëfandikoo noonu la koy yéenekaay bi xamle ba tey beneen yëglekaay ak la moo xam ne ni ki ji mu di antenne quotidien yéenekaay bi nekk lam ñoo xam ne moo bés bi nga xam ne moom la jàpp mu di suba jàmm ci talaata ji yemook ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai jagleel ko bésu joyanti mbooleem rëq-rëq bu nekkoon ci yoonu Sénégal antenne ku di na bés boobu la ko ginnaaw bi lim ko biir yénekaay bi di antenne quotidien ba tey le quotidien ci la taxaw itam bokk na ci ñi waral ki gën waral coow li ñu koy wax Clédor Sène moom nag la xam le moo moom Clédor Sène ginnaaw ko ci ndaje moom bi bokk ci li waxtaane mu di jojanti mboolem rëq-rëq boo xam ne am na ci yoonu Sénégal moom Clédor Sène nag ginnaaw bi mu bokk ci euh, set gu tax ci digganteem ak yoon ba tax mu war a ndaje moo xam euh, ne nañ ko ci euh, Dakar Presse yéenekaay nag ci taxaw tey ji lu jëm ci bés nga xam ne nañu jagleel maire yi nga xam ne ñoo bokk ci wàllum ñiy làkk France ñu koy francophone maire yi nga xam ne jamono ji taxaw na bis bi noonu dajal mu nekk ak yoon ak ñeent ñu di ko amal yi nga xam ne Babacar Diop di ab maire yëkkati nañ ko moom nag la xam ne nag moo nekk na loo xam ne jot na sëkk nag ñu daal di koy waxtaane waat nako itam eh, xuppi na wala bokk ay menaces yoo xam ne jibal na ko jëmale ko ko ci yoonu Sénégal yéenekaay nag la xamal moo di loolee nag farce la maanaam loo xam ne taf yëngal la rek loo xam ne dañu koy def waaye ca dëgg-dëgg aggu ci seen biir wala bokk lañ ca jublu dëgg-dëgg mooy wàllum bu

dogal loolee nag ma nga war a soxal ñi nga xam si ñoo yëngu xam ne dog dogi ndox suñu moytuwul dana am fii ci diwaanu Dakar yéenekaay bi moo ñu ko xamal la ko waral moo di euh, am ci mi nga xam ne moo jógee ci lac de Guiers bi euh, yéenekaay bi nag lam ñu xamal moo di moo tax dog dogi fii ci diwaanu Dakar maanaam euh, fii ci Dakar dina ñàkk ndox ci diggante bu gàtt noonu di ko yéenekaay bi xam le ba tey léegi fa moom itam ma nga taxawaat ca bis bi nga xam ne moom la jël jagleel ko joyante rëq-rëq nekk ci yoonu Sénégal ñu bare bare ci askanu Sénégal la ba ñu bare bare ñoo xam ne na ci la ñu xam na ci ñoo a lii mu bëgg naan day jubbanti yoonu Sénégal nekkut loo xam ne lu yees la fi amoon na fi maanaam lii muy def lépp maanaam euh, luy

district bokk na ca Moustapha Diakhaté ay kàddu mi ci biir yéenekaay bi naka itam ñu baree bari ci ñoo xam ne ay xeltu ko daan bokk ñoo xam ne seen xalaat dañ koy jëmale ci biir yéenekaay naka la joyanti loolu mu daal di ci aw noonu la ko yéenekaay bi daal di xamle

direct news ba tey ah, beneen yëpp yëgle kaay la moo xam ne ni ki tey ji mu di l'observateur yéen kaay bi lam ñu xamal moo di ciné bar di cocaïne liñ ciy teg loxo fii ci réewum Sénégal takku na ba àgg ci lool ñëw na ci ab lim la xam ne mooy lu toll ci juróom-ñeent junni ju teg ah, juróom-ñeenti téeméer ak fanweer ak ñeent ci ay tonu sinébar teg nañ ko loxo ginnaaw nag ah, loolee ma nga rek atum jàpp 2023 rek moom la lim boobu ba tey yéen kaab bi ñoo xamal ni ci koppar mu toll ci ah, téeméer ak fukk ak ñaar ci ay milliards noonu la ko yéen kaab xam le yéen kaab taxaw jëm ci wàllum diine màggaluk daaru ci la yéen kaab taxawaat tey diggante Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ak maam Cheikh Anta borom Gaawaan yéenekaay taxaw na ci di ci indi ay leeral yu mi ngi ci biir ay ba tey yéenekaay bi dam ñu xamal moo di séq naag waxtaan ki nga xam si di euh, moo naka itam Amadou lu jëm ci taxawaay bi nga xam si ni jamono ji moo soxal lu jëm ci wàllum Pastef ak yeneen yu ko nuru ak gouvernement bi lépp mu ngi ci biir yénekaay bi le public moom te la mu taxaw tey ji moo di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ànd bi ñu ànd mu nekk ànd bu dëgër Bassirou wala bokk Diomaye mooy nekk loo xam ne metti na te neexul waa APR jamono loolu mooy eh, ñagas lool seen biirub xol noonu la koy yéene kaay bii di eh, moo di sunu sañoon eh, Ousmane Sonko day mu féex ci ab liggéeyam lan moo xam le moo di Bassirou Diomaye dafa tënku noonu la ko waa APR xam le moo tax le public xëy ci tey ji lii quotidien ji moo mbirum Bah Diakhaté mi nga xam ne tey ji la war a jàkkaarloo ak attekat bi ñu war a lijjanti ay mbiram xam fan lay mujjee ak yoon ci tuuma yi nga xam ne jëloon na ko témale ko ci ilimaani jëloon di Ousmane Sonko yéen kaay bi nag lam ñu xamal moo di moom Bah Diakhaté nag ba tey ji mu ngay gën a fam jàppoon kàddu yi nga xam ne jibaloon na amut lenn loo xam ne ma ngi ko cay deltu ginnaaw yéen kaay bi moo ba tey yéen kaay bi la ñu xamal moo ba nu xoolee jollo su ki xam si ni moo ba jaxate xool compte wii fam fekk nañ fa koppar boo xam dañ ko yónnee mu toll ci ñent ci ay millions yéen bi dikk na ci ba tey yéen bi la xam si ni moo di ji ma ngay jéggalu euh, ginnaaw moom la jàppandoo ak ki nga xam si ni moo di ba jaxate moom nag ay kàddu ma ngi ko sukkandikoon ci leen ci ilimaani ma ngay jéggalu ba àgg ci loolu di xam ne nag loolee kàddu yu njuumte la noonu ëpp ci yéen kaay ji ci lu ñu xëy moo di